janook Omaro mu Serigne Thialiou le porte-parole de Wally Balago Seck mais aussi euh, le porte-parole sunu papa ji nga xam ne moom moo fi jógee di feu Mamadou Yatassaye euh, tey ji nag ñu ñëwoon toute la presse euh, set si ko woon jaale ci ko waale ak toute la famille donc ñu fekk fi omoro mu Serigne Thialiou war ko moom aussi jël jaalu presse bi yëpp teg ko sa loxo parce que yow yaay porte-parole Mamadou Yatassaye ñu la koy jaalewaat bu baax Omaro ndeysaan kontaan naa fii sama xol ngi la koy jaale parce que Mamadou te bàyyi la ci ñu bari ñi taxaw nii ci presse bi parce que tey bari na ci taxawaay yu am solo yoo xam ne am na ko ci wàllu carrière politique am mhm. lépp luñ ci wax wala ñu def ko mag yéen a ko ànd mhm. ci conférence de presse yi ci lancement yi ci investiture yi lépp ñëw ngeen taxaw dëgg seen bopp dooleel ko sotle ko jàppale ko kon tey bu yàlla dogalee mu génn àddina ngeen ñëw jaala si ko indi seen soutien indi seen doole te damay wax bis bu set ci télé bi ne doomu aadama bu ne la nga am ngay teralee mhm. Mamadou tey mun leen ko defal dara lu dul lii parce que lii ngeen am te it noonu la ko fonkee ci yéen mhm. xam naa fu mu tëdd it nangu na ko mhm. te te yàlla seere na ko barke Sëriñ Bamba kon ñu ngi ñaan taxawaay bi yàgg te fa mu tëdd gënal ko fi mu jugee yàlla na rëcc li doon ñëwee ci àddina yàlla na rëcc li mu doon ñëwee ci àddina tey jii perte bu mag la ñu perte ku mel ni Mamadou Yatassay lu lu bànqaas bu mag fàqeekoo na ci réew mi parce que li muy def en terme d'emploi en terme de social euh, boo gisee ndaw ñi mu employé ci ci ci ci usine am boobu di Aquaterra rek war nga xam ne kii euh, ku am njëriñ la ci Sénégal donc Sénégal perte na nit ku mag lan nga ñu mën a wax tey wala benn témoignage nga ñu mën a defal ci Mamadou Yatassay mhm. perte bi mu bi nga xam ne am Sénégal am na ko Sénégal perte na nit ku baax Sénégal perte na nit ku bari valeur Sénégal perte na nit koo xam ne boo gisee may wax naan nit njariñ ci tele bi mm. naan nit duñ ko maafe duñ ko yaasa duñ ko macaroni duñ ko nambe nit njariñ Mamadou Yatta Saay tax may wax mm-hmm. fexe na ba ku ko yàlla booleel jariñ na la mm. waaw moo tax moo tax moo tax dama dama dama yeewu tey suma lal ma jooyi waaw ma jooyi ma jooy ndax man lépp dañ ko ànde maak moom mm. mar di ci guddi bi ñuy reerandoo di joxante rendez-vous mercredi kii fa la ma fekk ak kii far yàlla dogal mu wooluñu pour waxtaan ak ñun ndax yéene goo xam ne amoon na ko ci wàllu politique ñu waroon a xëy mercredi def point de presse mottali yéene ji ndax kat bëgg-bëggam ak yéeneem moo doonoon jàppale Amadou Ba hmm. Amadou wax na ko démb carte générale ci télé bi woo ñun ñii waxtaan ci ak ñun ñu ne ko kat ñun moom yaay sunu bopp yaay sunu làmmiñ yaay sunu nopp ñun yow loo wax lan wax loo wax wax nu ko ndax kat kenn du joxe làmmiñ di rot ci kenn du joxe bopp di rot ci làmmiñ waaw nit moom dugg naa ci pax bi bàyyi naa sama gen ci biir duggoo ndax buñ ko fekkee ba bombardé ko dootoo ko dolli ma ne ko ñun yow la am loo wax la ñu wax loo wax ñu ko mu ne ñu nañu waajal mercredi 19 heures ñu daje siège ñu ndogoo fo buñ ndogoo pare ma dajale presse bi ñu communiqué. Oh, ba maas mii seere na ni bokk na ci ñi ma jotoon a contacté ndax man sama soxlaa presse bi mënu woo ñëpp maas laay woo na ko woo ñëpp mu woo ñëpp jot naa maas ma ne ko mercredi après ndogu fekk leen ma siège ba maam am déclaration bu ma def ndax président yi tasaay ànd ak Amadou Ba te ko war a wax mm-hmm. rendez-vous bi moo doonoon après ndogu ma def déclaration bi te bu ma koy def moom day toog dix huit heures une heure avant ndogu ci la daanu pique crise oh. ñu yenn yóbbu noonu laa fa bàyyi ndogu bi bàyyi fa mbooloo mi ànd ak doom ji Cheikh Tassay ñu jubali fi nga xam ne mooy clinique Bellevue ñu yegg médecin yi def ci li ci war daal di koy hospitalisé mu nelaw dugg daal a coma heure bi ñu yegg si 18 heures mu dugg daal coma 18 heures la lendemain du jeudi ci la chitewaat daal di defaat beneen crise ci biir nelaw bi diggante fi ñuy ndogoon na après ndogu jot na ci la def arrêt cardiaque génn àdduna muy lu méttee méttee méttee méttee métti loo xam ne mhm. ku ko jegewul bokk ci njabootam mënoo xam métit bi waaye Sénégal moo ñakk ci wàll emploi ndax il avait plus de six mille employés dans ce pays barke Cheikh Saliou fa jaxte yoo xam ne ñii ngi ak waa ci ndox mi mais ñii ngi ci yeneen barrage yu bokkut ak ndox mi ñii ngi ci sut kii bi euh, ni ñu koy waxatee waay euh, sous région bi mhm. ay Mali ay Gambie ay Mauritanie yëpp ak waa Teraanga fa woon samp ay doomi réew mi ne fa di fa liggéey mhm. mu jëlee leen fii Sénégal affecté leen foofu ñu fay daan seen doole weer dee ñu seen i njaboot tey jàmbar jooju moo daanu waaye tey ñi daan euh, ci daanu gi tey lim lim dimbali ci wàllu emploi dimbali ko ci réew mi ci wàllu social dimbali ko ci réew mi ci wàllu jëf ju baax ak wàllu wax ju baax mais yërëm doomi aadama yi keroog bi mu ne li dugg ci politique Angleterre la ma fekk dama ko ne président a ma naa ma ne ko bu ma soñoon politique bëri na fitna bëri na coow bëri na xeex moo showbiz a yam te moo gën a métti showbiz mhm. nax alal ji ne ci politique nekkul ci showbiz te fu alal bëri mhm. ren te bëri fa fu jamaa feeñ jàmm du fa am fu jamaa feeñ mhm. jàmm du fa am moo tax ma ne ko alal ju bëri ji nekk ci politique moo tax nit ci politique yee gën a sadik nit ci showbiz yi bàyyil politique bu ci dugg mu ne ma politique ma pour xaalis politique ma pour tur damay politique pour dimbali suma réew ndax li may jot ci carte de soutien li may jot ci wàllu ndimbal ak social te yor entreprise kese nekk chef d' entreprise tey bu ma nekkoon njiitu réew dana gën a yomb ci man bàyyi ma tàbbi ci langue bi lu ñu am jël sante ko yàlla ñu tàbbi ci bi muy démarré fekk ma fi Angleterre la ma fekk mais bi ma ñibbisee dama dabe ñoo fekku ci liggéey bi ñu ànd liggéey bi ba keroog muy génn àddina waaye ku ñàkk rek man nga jàppale kii xam na li may wax ñu ngi ni toog xam nañ la may wax ay collaborateur am lañu ay partisan lañ nekk ci parti am ñii xam nañu ne Mamadou lu waaye mësa bëgg ci moom ci man ngay jaar ndax maay bakken bi gëmewu ma mu bëgg ma ba gëmewu ma bëgg ma ba ay soxnaam dañoo mujjee yéemu ci cofeel ak yëg-yëg ak yéen a ci man luñ soxla ci moom sax dañ naan noon nañ bàyyi ba Omar ñëw daa am faiblesse am daa am faiblesse Omar moom lu waay mën a wax moom bañal la ko yow baa ba Omar ñëw rek nga teg ko ci loxoom moom du bu mu dugal day yàlla ma boole ko man samay dossier bopp man personnel man damay ñëw indaal ay dossier jàmm nu ñëw naa ko asana sa dooma de foog nga jàppale ko mi ngi ci nangam ak nangam taxaw ci ay mbiram roof ko pexe dugal dossier Assane dugal dossier Samba dossier Pathé pare teg samay dossier xam xam nga ne kooku sonal naa ko te terewul da koy def ni ma ko bëggee damay gis ak moom du lundi au dimanche amul bis bu ma dul gis Mamadou Yatassaye de vingt deux heures à zéro parce que man aw ma fréquentation man dew ma fenn man da ngay nekk ci milieu bi ma ci milieu ma gis parce que aw ma taxawaalu ak la mbal la mari fu ne nga dugg fa man ñaari kër laay dugg ci Ndakaaru kër président Waly Ballago Seck te à de deux heures laa fay dem ba six heures wala kër président moom yot saa yi de vingt matinal bi maa ngi sama business wala ma dem deux civi daan sama doole dem liggéey waaye terewul chaque jour de vingt deux heures à minuit damay dem reeroon ak moom ñu toog waxtaan fa laay nekk ba minuit ma déparé fa ñibbi sama kër sangu changé la noppalu ba deux heures du ma yeewu dem kër président Waly fa nekk ba cinq heures wala six heures doo ko tëddaat mais amul benn guddi bu ma sa rëcc bu ma toog a président ci saay te ñibbi jot tërikitiwu cent mille francs dama essence il m'a donné chaque soir cent mille francs chaque soir amul tëbal guddi gu jot mu jox ma cent mille du lundi au dimanche te bokkut ak bi ma falee chargé de communication def ma ambassadeur ak Watera tous les mi ngi koy signé daado jaram mi mi ngi baaba muy chef comptable mi ngi toog Cheikh Yatta Saay mi doomam mi ngi toog Souleymane mi xaritam di mbokkam ñu bokk na Gounass mi ngi toog mu defaral ma contrat mu signé ma signé ñu jël sama carte d'identité jël carte d'identité li ngeen ma gis may ànd moom yëpp oh kii mi ngi toog kii kii kii ce sont mes kii mooy père Birima ndeysaan ndeysaan kii mooy père Birima père kaay toog. kaay contrat de 3 millions daal kaay toog kaay toog kaay rek mu catal kii. donc Omaro li muy wax ni yaa koy dëggal que ni contrat de 3 millions bi bi mu koy signé yaa ngi ko waaw. loolu de am lu ma si xam. ba ma naan ko moom bul signé daf ma mhm. man maay sa bul signé. waaw bu ma jàngal li may wax. ma ne ko maay sa bul signé. Mhm. ndax da ngay am si moom. ëpp ëpp na loolu. Mamadou na ko ne yoon nekku si bàyyil mu signé ndax looloo ba arrangé nga xam ne weer ba weer laa koy fay waaye kenn la si Mamadou. kon dëggal nga ko. waaw xam nga tax man la kenn la si Mamadou. lay toog ba mu nekkoo. mu ñëw na ko papa mu ne ko mu ne ko ñetti weer a ngi fayeeku ma Mamadou na ko ah ko ah waaw waaye weer kooku weer bële la woon du weer bi. waaw weer bële woon du weer bi. te boobu si weer boobu mujj na ñoom ñaar dem nañu ba affaire boobu sax kontatul bi mu koy mujjee jox xaalis moom mii mm. si la ma Mamadou di jox xaalis baabaa ngi nii dafa laaj baaba xaalis baaba jox ko mu jox ko ba pare wàññil ma dama jógal nga dem ñibbi ndax teer bi day wàcc te léegi sa yaram neexatul maa ko may ma jàmm tey ji laa gën a mën a xeex waaw mu may daal di ne seex yóbbu ko nga dem déposé ko waaye kooku benn nit la ci Sénégal. Mhm. façon nit ku baax ku nekk xam naa ko waaye ku baax xëy na moom moo di yeeta saay dootu fa gisatu doo yaakaar naa ne ci àdduna li des sama àdduna dootuma ko gis. waaw. jërëjëf xam nga ñoo bokk ndeeg bàyyi. Aliou Yata Saay la tudd. bu ma saana bëgg ci Mamadou ci man lay jaar mu ngi ni toog. man lay woo ci ruq bi na ma sa yaa mën a wax ak moom de waxal ak moom nangam ak sàngam léeg-léeg mu ñëw Mamadou indil ko ay jafe-jafe dugg ko ci ay problème mu woo ma làq ma ci rek ma gis nga jaxase nañ ma moom gars yi dañuy dem rek wax ko ay wax mu dugal ma ci ay jafe-jafe dama nga wax moom ma man dama wax moom ne ko Aliou Samaga jox ko cër ak koo mën a doon ak loo mën a doon ak loo mën a am munoo ak Aliou naalu kaay Aliou ñëw toog ma ne ko mi ngi nii toog wax naa ko dama koy wax bàyyil mu sedd jeex na joxante nañ loxo mu ree Aliou ree ñu kottante nday saa yaa ngi may ñu kaf fooree mu yëkk ci ay xéwal jox ko ñu pare ku na dem tey cër bi mu ma joxoon dafa dem ba amu mbokku deret amul ndokku mbedd amul soxna amul doom ñëpp xam nañu ne Mamadou amul sago ci Omaro man nu ngeen gis Mamel Koutiouli rek rafet leen njort ne moo mel noonu ci man moo war a bi mu daanoo àddina sëpp man la ñu xalaat réew mépp man lañ ko jaale ba ci présidence son excellent président Macky Sall ak jabootam man la ñu woo jaale ma ki nga xam ne mooy président Macky euh, président Mamadou Yassou Saay parce que xam nañu taxawaay bu am solo bi ma amoon ci bopp chef d'entreprise yi kilifa yi réew mi waa waa waa culture ñu yëgu ci showbiz artistes yi président Wally mi ngi ci yoon bi départ na noonu léegi mu yegsi boo méttu balaa entretien bi daanu da ngeen ko fi gis yaa ngi may dégg suñu papa Kéba Seck léegi la dem suñu papa Ndeer Aliou Mbender ca tàng tàng ba la yegsi suñu papa Salam Diallo ca tàng tàng ba la yegsi parce que moo leen ko ji ndax moo daan jël alalam di ko dugal ci seen i seen i seraano ci seen i single ak seen i dîner de moo tax ma la tey Sénégal moo ñàkk waaye barke Serigne Bamba kenn ñàkkul ku dul Omaro man mii maa gën ñàkk. man kooku dafa yàq sama addina. waaw Mamadou Yota Saay. Mhm. Aliou Yota mii di magam. xam na ni lim ma tàmmal. moom moom moom wax dëgg yàlla du ma nit ku ñàkk jom du ma nit ku bañ a liggéey ndax fukki at ci ren maa ngi liggéey 2013 ba 2023 2024 maa ngi desi bi daan sama doole weer dee Alan Ndiaye di ma maa ngi ak samay sponsor maa ngi ak samay partenaire ambassadeur laa Kaapay porte-parole laa ci président Waly Ballago Seck ambassadeur laa ak waa Tera ak ci yeneen i barab yu bokkul yoo xam ne c'est privé. Mhm. kon xam nga a ngi liggéey. mais dama la ne li ma Mamadou mënal liggéey mënu ba leer na li ma Mamadou mënal liggéey mënu ko li man ci man mbindeef buy dund bu sa bopp jëm kaw sa jëm suuf mënoo ko ci sama jëmm ji te da koo def ci man ba daanu. Mhm. ba vey bi ñu mujjee gisee. teraangaam gi jóge ci moom di ñëw ci man paa bi fi toogoon léegi fekkee na ko mhm. kii fa la ah, bi muy dem ak Assane mii fa bi muy dem kon su ma la waxee dëgg mon frère mon fils euh, wéet naa nit ku baax nitu valeur waaye wéet naa as gor bu ma daan dimbali ci suma liggéey ak suma carrière. barke Serigne Bamba wu question wu relève bi. est-ce dina am ku ko mën a assurer entreprise yi fi yoroon. Mm. donte am na taawam ku fi mm. nekk war ko mën a assurer. Mm. Euh, ak aussi projet yi mu amoon moom Cheikh Yata Saay ci politique bi ci social bi ci emploi yi. est-ce am na tey jii koo xam ne dina mën a téye euh, dëgër laayam. ndeysaan bàyyi na fi doom ju góor ju mag ju tolloog man. ju ñuy wax Cheikh Anta Saay waaye bàyyi na fii ay mag ndax Mamadou mooy caat naa waaw mooy caat bàyyi na fi ay mag kii magam la Mamadou du mag à l'âge de 48 ans la dee 1976 judd xale bu ndaw la yàlla ko jëmmal rek may ko kilifa def ko dara dañu koy wax papa waaye xale la kii ko mag kii toog moom ak Mamadou waaye rafet nañ njort ni Alioune mii mhm. du toog di seetaan vieille Anta Saay du toog di seetaan keneen ak keneen ci ay mbokkam di ay magam duñ toog di seetaan danañ jug takk seen digg bu nga seen doom Cheikh Yata Saay mi nga xam ne moo doonoon bras droit am doonoon léppam doonoon loxo ndeyjooram xam léppam ñu buux ko bu nga ko ci liggéey bi sama classe gee classe su gi nga xam ne fekkee ñu ci boole ñu ñëw jàpp ci ngir entreprise boobu bañ a laa suuf ndax day sama gàcce la man ma dund yëg ne ak waa tëj na sama gàcce la ma xëy suba dund yëg ne ak waa Terra daanu la ba na lu ma ci man ci wax ak jëf ak ci collaboration ak ay relation ak ci communication. danaa ko ci def ngir ak waa Thiera jëm ci kanam ngir ki ko moomoon. d'accord un mot peut mhm. waaw. c'est normal. parce que euh, man li ma yëg di ma téye jaag bi ànd ak moom. Mhm. ndax dama ànd ak moom ci bànneex. Mhm. muy neex ñuy kaf di foo di ree di lakk xar yi di ko boroset di ko roof. di naan ji di naan café mhm. mu xëy daanu maan nag moom ci clinique ba assisté ko ci feebar bi fanaan ak moom ci clinique bi mu tëdd ci kaw ñu samp ko ay bëccël samp ko ay bagage ma tëdd ci karo yi fanaan ak moom bu bët set ñu yeewu yàlla jël ko dama ko war a bunge si suma ma dee as gor moo mhm. waral ma topp ko rek bunge ko bunge ko bunge ko ba téye ci jaag bi ba dugg ci pax bi ba jëbbal ko boromam doo ko wane ginnaaw dem ba wane ginnaaw dem rek laa xam ne man ñàkk na ba wane ginnaaw dem mooy moment bi ngay wax nii ci laa xam ne man moom pare naa ci waaw ñàkk naa ñàkk naa bàyyi ñàkk naa xarit ñàkk naa doomu yaay waaye ñàkk naa nit ku ma mën a assister nit koo xam ne lu ma am ci àddunaam ay bëti Omaro di weex ay bëñi Omaro di weex moo ko gënal mooy ne Omar na ci jàmm sama fitna ak sama xat-xat ak sama jafe-jafe du ma jege du ma jege parce que bu koy seen di ko dogaale kon tey li ma yëg mënul ñàkk ma yëg ko li ma jooy mënul ñàkk ma jooy ko li ma naqari mënta ñàkk mu naqari ma parce que ki génn ci man moo foor ba tax na maa ngi ñaan yàlla euh, sàmmal ma sama kóllëre ak moom ba àdduna ak àllaaxira yàlla bu ma ko fàtte yàlla bu ma fàtte njabootam ndax daj na ci man loo xam ne même bu duddoo war naa ko topp jëmee ko ci njabootam ndax sekk na ko ak man kon maa ngi koy ñaanal suuf sedd ci kawam yàlla yërëm ko te yéexuñu ma